الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ñu toll ci suura al an'am tey ñuy jël ñeenti aaya aaya 154 155 156 157 ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala aaya yooyu ñuy jël liñ ciy jàng mu nekk hidayatul ayat mooy orientation yi ñu aaye di orienté mooy juróomi mbir la yooyu ba ca njëkk mooy bayaanu minnatullahi taala ala musa alayhi salaam wa sana alayhi li ihsaanihi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ñuy jàngal ci sunu aaye yi nekk sunu kanam di ñu leeralal xéewal yi nga xam ne moom yàlla subhaanahu wa taala defal na ko yonent bi di Muusa alayhi salaam waaye sunu borom yemul ci defal ko ay xéewal waaye taggu ko waaye rafetal ci moom bu baax a baax a baax a baax xam ngeen ne Muusa bokk na ci yonent yi nga xam ne seen tur dafa ëpp ci alquran ginnaaw Ibrahim alayhi salaam Moussa ca topp ci ñu yàlla répété seen tur ci Qur'an baqara ba suratul aala da nga fekk sunu borom subhanahu wa taala di wax turi Moussa waaye sunu borom kàttanal na ko defal ko sax juróom-ñeenti kéemtaan yoo xamante ne defalu ko kenn loolu Moussa moo ko moom bokk ci xéewal yi ko yàlla defal sunu borom aar na ko. ba mu nekkee ci biir way juróom bu jigéen ba ba mu juddoo nekk liir sunu borom aar na ko ba mu nekkee liir ci bañ ko dugalee ci dex ga waaye aar ko ba mu màggee suñu borom xaral ko géej daal di labal labal noonam moo tax mu ne sunu borom daf ñuy leeralal tey xéewal yi nga xam ne moom la sëmbërtal sotti mu nekk ay waame ci yonent bi di Muusa alayhi salaam ñaareel bi mooy taqrir aqidatul ba'si wal jazaa'i yawm al qiyaama bokk na ci aaya li ñuy jàng tey yàlla di nu saxalal pas pasu dekki ne dekki lu am la doomu aadama yi tey bokk na ci li yàq seen dund mooy waaw ñàkk gëm dekki dekki ndax dekki dafay defar dund doomu aadama nit ñi bu ñu gëmee dekki rek seen dund àdduna day jag ndax lu bëri ci ay caaxaan ak ay ay ay ay ay ay duñ ci dugg parce que xam nañ buñ dee dañuy dekki ëllëg waaye nit ñi bu ñu gëmul dekki wala ñu gëm ne bu ñu dekkee am na ñu fa nekk ñuy régler problème yi wala ñu gëm ne ñoom dugg nañ àjjana ba pare leen tere dugg àjjana mooy dee kon dund bi du jag ndax soo gisee tey réew mi caaxaan yi bëri mooy dañ leen assurer àllaaxira laaj nañ benn kilifa diine ñu ne ko gars yi ne ko ñun de dañoo seetlu gars yi jógee Dakar di ñëw fii du ñu wax mbirum alaxira mbirum àdduna rek la ñuy wax mu ne alaxira rek la nañ ko ba pare moo tax mbiru àdduna moo des moo tax loolu moo leen fii indi looloo tax alaxira gis nga gars yi kenn du xalaat sax ne fa lañ jëm kenn du xalaat ne am na luñ fay fekk kenn du xalaat ne ëllëg ci biir bàmmeel yàlla dina dekkil doomu aadama yi ñoom ñëpp dajale leen ci ardul mahshara kenn ku nekk mu audité la mu laaj la kenn par kenn kenn par kenn te loolu nag lu jar la ndax ay daf ñu koy saxal ne dañuy dekki ëllëg waaye bu ñu dekkee du question dañuy dekki rek bu ñu dekkee dafa am lu tax ñu ñuy dekki mooy dañ ñuy fay jàngeen man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal jàng ngeen sunu borom subhanahu wa taala ne zaama allazina kafaru an lan yubaasu qul bala wa rabbi la tubasunna summa bima amiltum mu ngoog yàlla neen dinaa leen dékkil te danaa leen xabaar li ngeen doon def yëpp ci àdduna kon dékki dafay am suñu dékkee nag li tax ñu ñuy dékki mooy dañuy fay suñuy jëf liñ doon def ci àdduna yàlla sant nu ko daf ñu koy fay waaye danañ jàng tey al ishaada bil qur'aanil karim wa ma awdaahu llahu fihi min al baraka wal huda wal rahma wal xayr danañ jàng sunu borom subhanahu wa taala sang gi mu sang gi mu def alquran mu nekk sang maanaam alquran dafa barkeel ba lépp lu takk ci alquran day barkeel ku takk ci alquran da ngay barkeel dëkk bu takk ci alquran da ngay barkeel mbindeef mu laal alquran da ngay barkeel barke boobu ci alquran dong la nekk jibril lu tax mu nekk ngeen gi malaayika alxuraan la wàcce màkka lu tax mu nekk ngeen gi dëkk alxuraan dafa wàcc montagne bi lu tax mu nekk jabalu xiraa lu tax mu nekk ngeen gi montagne ah lu tax mooy alxuraan moo fa wàcc leelatul qadr lu tax mu nekk ngeen gi guddi alxuraan moo ci wàcc seyduna muhammad lu tax mu nekk ngeen gi mbindeef alxuraan moo wàcc ci moom weeru koor lu tax mu nekk ngeen gi weer dégg ngeen yàlla mu ne chahru ramadan allazi unzila fil quran kon téere baa ngi nii gis ngeen suñu ñaari champion du monde yi sax gis ngeen léegi ni ñu amee barke wala ah lan moo leen may barke boobu seeni ndey ak seeni baay wala déedéet alquran moo tax yàlla subhanahu wa taala def ko isaada yàlla def ci denc ci ay barke yu dul jeex téere bi dafa barkeel ba lu ko jege barkeel téere bee barkeel ba ku ko jege ku ko jàng ku ko gëm ah xayrukum man taallama alqur'ana allam téere baa ngi nii ma mu nekk téere bu am barke waaye téere boo xam ne téere njub la mu nekk mujiza dëppi ba ko yàlla wàccee ba tey yonent yëpp seeni mujiza sànku na réer na ba mu des sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ba pare mooy mujiza boo xam ne day ànd ak jamono guddeeg bëccëg tey boo demoon ci yahud yi nga leen jox leen ma mujiza Muusa mënatuñ la koo jox kéemtaanu Muusa moo doon lan ah jaan ak lan déedéet du jaan yat la yat bi la daan dóor mu nekk jaan bu dugalee loxo bi ci poqataan yi mu weex tey ban yahud moo la mën a defal loolu soo demee ci kere nasaraan yi nga leen jox leen ma mujiza isa kan ci ñoom moo mën a dekkil ku dee kan ci ñoom tey moo mën a raay gumba rek mu gis kan ci ñoom moo mën a noddar ci xuugi kon mujiza ya dem na waaye tey boo ñëwee ci jullit nga ne ko jox ma mujiza Seydina Muhammad mu rocc benn quran ne la moo ngi nii kitaabun laa yaatihi albatil min bayni yadayhi wala tanzilun mu ngook téere la boo xam ne depuis ba mu wàccee ba léegi amul lu ko mën a ñëwee kanam wala ndey joor wala wala pour falsifier wala wala mënul nekk te lu ñëw mu ànd ak moom léegi dañuy toog fii di tafsir quran di ko jàng ñuy leeral aaya yi dafay mel ne ne aaya yi ñun ñii la dafa mel ne dafa mel ne tey jii la tey tey la wàcc wala mu ngi mel ne léegi léegi ci ngoon léegi léegi ci événement bi ci loolu la wàcc suñu kaw loolu moo la doon dee mu'jiza la ba pare yàlla défi la lancé ba muy wàcce téere bi la ina jamaatil jins al ins wal jinn su jinne yi ak nit ñi àndoon pour indi lu mel nii duñ ko indi yàlla wax ñëw ci nit ñi ne nañ dajale seeni sohada seeni kàngam seeni kàngfóore seeni borom xam-xam pour ñu indi benn aaya est-ce que indi nañ ko boobu ba léegi moo ngi noonu kon sunu borom subhanahu wa taala mooy ki aar téere bi def ci barke waaye def ci njub téere bi donc mooy jubalaat leneen lu la doomu aadama indil ci programme daf lay sànq téere bi rek téere bi moo ñëw ci kaw suuf pour libérer doomu aadama mu am liberté du jaamu kenn ku dul yàlla mu yëg ne moom ginnaaw yàlla tabaraka wa taala waru fee toroxlu lenn moog lépp a yem moog ñëpp a yem waaye xoolal boo bàyyee téere bi rek da ngay torox ngay torox parce que démb lañ ma lancé benn message whatsapp ma gis ay nit yuy raam ci benn tali tali bu tàng jër ay nit di ci raam naan jar naa xaw ma dukki dukki xaw ma déngi déngi di raam ci tali kan la ñuy raamal ndax yàlla la ndax jàng nañ fenn yàlla mu ne raamal leen ma waaw saa yoo noppee jaamu yàlla rek da ngay nekk jaam keneen waaw boo lankalee yàlla rek nangul keneen loolu mooy adduna ku nangul yàlla nangul keneen boo jaamul yàlla rek jaamu sa morom loolu mooy adduna mu ngi mel ne butéel rek butéel du vide bu ci dara nekkul rek lu ci nekk ah loolu ngeen jàng science butéel du vide loolu mooy doomu aadama jullit xolam du vide bu ci yàlla nekkul rek leneen na ci faraax waaw nga nekk jaam nga xoola xoola xoola ñii di ñibbi ñaata nit lañ fu ñu yendu fu ñu yendu lu ñuy jaamu am na ñeneen ñoo xam ne nekkuñ ci lii mais ñu ngi ci leneen am ñoo xam ne nekkuñ ci lii ñu ngi ci leelu am ñoo xam ne nekkuñ ci lii mu ngi ñu ngi ci leneen ñoo ñëm nag ibaada la de afara ayta man ittaxasa ilahahu ñu nekk la seen xol bëgg la nekk seen pas-pas loolu la ñuy jaamu kon téere bi mooy téere bi njub waaye wa rahma téere bi mooy téere bi yërmande ndeysaan téere bi yërmande dong la ëmbal nit ñi moo tax mu yàlla wàcce ko ci ñun xoolal rek yàlla mu ne boo ko jàngee rek tiyaaba kese ngay am bal sax yonent bi mu lay orienté dafa la ne xarf boo jàng da ngay am ñaata tiyaaba ah fukki tiyaaba boo jàngee benn xarf fukki tiyaaba ngay am bal sax mu ne la laa aqulu alif laam mim xarf bal alif xarf laam xarf mim xarf soo doon jàng tey alquran nga ni alif laam mim ñaata xarf nga ñaata tiyaaba ngay am fanweer kon boo jàngee baxara ba mu jeex la kon laaj bi mooy est-ce que dëgg dëgg dëgg ñun am nañ lu ñu li ñu am est-ce que xam nañ ko li ñu am pourtant bu ñu ne woon ku jàng ku jàng baxara ah baxara boo jàng 10 000 la wala paquet 50 000 la baxara saa yoo ko jàngee 10 000 la wala 50 000 kan ci ñun fii toog mooy xëy du ko jàng day jàng bu ñu la ne woon alif bu nekk paquet la 10 000 la laam 10 000 miim 10 000 kon est-ce que yaakaaru leen dinañ xëy kaamil dootul amari ci kaw suuf ah di nga dugg fu nekk di àbb kaamil wala ngay jënd kaamil doo ko gis kon di nga gis kuy jaayee kaamilam 100 000 francs voilà pourtant nag li ñuy am ci li ñuy am ci alxuraan bi moo ëpp 10 000 ak ay 100 000 ak ay 50 000 mais maal asaf léeg-léeg dañu ne doomu aadama bu ko mbir yi jegee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg du ko gis moo tax léeg-léeg borom xam-xam yi bu ñuy bu ñuy def cax bu ñuy cax dañuy wax ci doomu aadama lu ko jege doomu aadama moom bu ñu la laajee nga dem kaw asamaan te laaj bu ñu la laaj balaa ngay dépassé fenn environnement bi la wër loolu nga war a njëkk a xool ba pare nga doog a génn bu ñu la laajee benn laaj balaa ngay def dara xoolal fi nga toog xoolal li la wër xoolal après nga doog a génn foofu sa xel doog a génn foofu mais souvent dara bu la jegee doo ko gis jamais waaw doo ko gis parce que daf la jege moo tax yàlla lim ñu wax nii mu nekk ci alquran nekk ay barke nekk njub nekk yërmande nekk xayir yi wurul jeex ñun duñ ko gis sa parce que dëgg dëgg dëgg dëgg daf ñoo jege ba mu ëpp ñeenteel mooy qatul xujjaj xujjatul mushrikin bi inzalillahi taala kitaabihi wa irsali rasulahu muhammadun sallallahu alayhi wa sallam suñ borom dafa dagg lan la dagg mooy lay lay la dindi lay layu bokkaalekat yi yéeféer yi yàlla dafa dindi seen lay da koo dindi complètement lan moo tax mu dindi ko ci wàcce gi mu wàcce téeréem bi ak yónni gi mu yónni yonante bi ci la arrêté lay yëpp kenn amatul loo lay kenn amatul loo wax man de wax dëgg yàlla soo gisee mënu ma woon jaamu yàlla démb xaw ma woon lu yàlla wax loolu amatul lay xaw ma lu yàlla wax alxuraan a ngi nii soo gisee mënu ma woon jaamu yàlla man kenn ñëwul di ma ko fàttali yonent a ngi nii moo tax ñaar ñooñu alquran ak yonent bi dafa dagg layu bokkaalekat yeeg yéeféer yeeg yahud yeeg nasaraan yi amatuñu lay maadaama yonent bi ñëw na alquran ñëw na bu fekkee ñooñu la yàlla dagg seen lay amatuñu lu ñu wax masama ak nun ah ndax tey dina yell ab julit bu faatu jàkkaaroo yàlla yàlla mu ne ko doxoon topp ma mu naan ko ah est ce que da ngaa santaane woon nañ la topp kan moo xamul tey ne alquran téere yàlla la kan moo ko xamul li nit ñi kàccoore kàccoore xam nañ ne alquran waxu yàlla la wala ah lu dul ñu alku ñi ndeysaan benn waay ci dafa am benn groupe whatsapp bu tudd daarul muallimin benn waay dafa wàcce benn message mu ne benn xale dafa dugg ci toilette di way tala al badru alayna ci kaw mu ngi ci biir duus bi mu ngi tëju ci biir di dem toilette xam nga xale bu ndaw rek tala al bad ci biir duus bi mu génn rek papa ji jaawale la xii tër tër tër ay pes yaay ji dégg mu yuuxu yaay ji daw ñëw ne ko yow lan la da ngay rey xale bi xale bi lan la def ba nga koy dóor mu ne xale bi nekk ci biir duus bi di jàng alxuraan yaay ji ne ko non mais kii jàngul alxuraan kii tala albadru la doon way mu ne ko mais tala albadru alxuraan la ndax man moom lay jullee du saar boobu mu ngi wàcc keroog bi yonent bi di dugg Medine yàlla jox ko waa Medina ñu teeroo ko yonent bi nga naan ma du alxuraan allahu akbar xoolal jullit buy jullee tala al badru am na benn imam boo xam ne benn waay bu nekkoon fii ci jàkk ji bokkoon ci imam yi mës na ma nettali nee na mës na dem benn dëkk mu fekk fa imam boo xam ne buy julli allahumma ahdina fi man hadayta lay jullee bu jàngee faatee ba daji rek allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi kooku daal di jaaxle quoi bàyyi ba mu dem këram comme bugg ko comme gan la ci dëkk bi mu bàyyi ba imam bi dem mu topp ko mu ne ko imam man de dama dégg tey bi ngay jiite nga jàng ci jàkka ji loo xam ne wax dëgg yàlla man gisuma ko ci alxuraan mu ne ko lan la mu ne ko allahumma ahdina fi man hadayt mu ne ko moom yow man ñaar fukki at yi moom laa jiite ci jàkka ji nga naan ma du alxuraan yow xam nga li ngay wax sama rakk bu jigéen bu ma bokkal yaay am na benn dëkk bu mu nekk ci Fuuta di fa jàngale di jàngal jigéen ñi bi mu fa demee bokk na ci problème yi mu fa am ak waa dëkk ba maanaam góor yi dëkk ba paa yi bi mu leen bi mu jàngalee jigéen ñi ayatul kursi yu allahu laa ilaha ba mu jeex tak bokk na ci problème yi mu fa am ñu yóbbu ko ci sëriñ bu mag ba ca dëkk ba ñu ne ko ndaw si dafa ñëw fii di yàq lan la yàq ndax ñu ne dafa génne allahumma inna nuqaddimu ilayka ci ayatul kursiyu xam nga am na benn tarixa ci Sénégal bu ñu sëlmalee ci julli dañuy def allahumma anta salaam ci kaw ci jàkka ji bu ñu paree da ngay gis def seen asgaaru fa da ngay gis kenn ci mbooloo mi fu mu toog daal di jàng faatiha bu paree jàng faatiha daal di jàng allahumma inna nuqaddimu ilayka bayna yaday zalika kulli daal ne allahu la ilaha léegi nag ñooñu yàgg nañ ci loolu yàgg nañ ci loolu yàgg nañ ci loolu ba yaakaar ne allahumma inna nuqaddimu ilayka ci ayatul kursi yi la bokk ndaw si leen bokk ci ñu yóbbu ko ci sëriñ ba xoolal ay jullit yoo xam ne ba léegi xamuñu alxuraan li ci bokk ak lu ci bokk kii naan tala albadru ci alxuraan la kii naan allahumma hadina alxuraan la ñii naan allahumma inna nuqaddimu ilayka alxuraan la même fii ci même même même même ba tey fii ci biir dëkk bi ci Dakar gii di nga gis ay penalty yoo xam ne sa yaram day daw waaw léegi da ngay wax ak benn paa mu ne la loolu mu ngi ci lax dari bu lax dari bu mag bi waaw ay lax dari bu mag dafa am loolu mu ngi ci lax dari lax dari bàyyiwul dara lépp a ngi ci de lax dari kay tuuti rek la lax dari bëri wut de borom da ko doon bind yeggali ko mu daal di gaañu moo tax tuutee ci nekk li ci ëpp sax ci julli la première page yi aqida lay defar ak jikko tuuti ci biir après atte julli moo ci nekk ak njàpp kon kay bu ñu wax ne lépp a ngi ci ba mu jeex lu genn wàllu diine yëpp nekku ci naka la ab julli taxawee na lépp a ngi ci ku ko jàng pare nga jaratul ngay laaj kenn dara yooyu ngay dégg fii ñuy maye leen yàlla dimbali kon mbir yaa ngoog juróomeel bi mooy at tandiid bi zulmi yàlla leeral lan la ñu tooñ ak tooñkat yi lan la leen di fay ëllëg yowmal xiyaam ak ñi weddi yàlla ak ñi dummoo yu téere yàlla bi tabaraka wa taala kon ci tënk bu gàtt bu gaaw juróomi mbir yooyu mooy tey li ñuy jël dars ci sunu ay nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ne summa aatayna muusa alkitaaba tamaman ala alladi ahsana wa tafsilan li kulli cheyin wa hudan wa rahmatan laallahum bi liqaai rabbihim yuminuun borom bi ne ginnaaw lii ngeen xam ne yépp dégg ngeen ko ginnaaw wax ji nga xam ne leeral nañ ko ca lu ko jiitu di ngeen gis ne man yàlla tabaraka wa taala summa topp aatayna indil na Muusa yonent boobu tudd Muusa alayhi salaam te yàlla yónni woon ko ci yahudi indil naa ko lan alkitaaba tawrat téere boobu tudd tawrat te mooy ngeen koy wax ah tawra wala ngeen koy wax ci ci nasaraan amul beneen tur bible lan la ñaari lañ boole bible bible mooy tawrat ak injil ñaaree buñ ko boolee moom mooy bible bible bi ay téere yu bari lañ ci dajale mu nekk benn téere ay évangile yu bari lañ ci boole am na bu Luc am na bu Matthieu am na bu Paul am na bu Jean am na ancien testament ak après ñu daal di koy boole mu nekk évangile am na bu ñu ko booleeg bible bi mu nekk lépp waaye Moussa alayhi salaam yàlla li mu ko jox mooy tawraat moom la gaa yi dajale tey nag lépp jaxase boole ci lépp def ko benn téere mu ne summa topp aatay naa indil naa Moussa ah gaa yi naan ko Moussa ñàmme indil naa ko lan alkitaaba téere bi di tawraat tamaaman mu mat sëkk dara manqué wu ci mu complet yàlla tabaraka wa taala jox ko ko mu nekk lu mat mu ne alal lazi ca la nga xam ne ahsana moo gën a rafet wa tafsilan moo gën a leeral taxtaaju ilayhi ummatu banu israil loo xam ne xeet wowutu banu israil dinañ ko aajowoo fi aqaidiha ci seen pas-pas lépp lu ñu aajowoo ci seen pas-pas yàlla def na ko ci téere boobu tamaman wa tafsilan wa ihsaanan yàlla def na ko fa muy lu rafet muy lu leer muy lu mat ci pas-pas wa ibada ak ci jaamu wa fadailiha ak ngëneel ya ca nekk wa ahkaamiha ak attaya li yëpp yàlla def na ko soo ñëwee ci pas-pas yàlla leeral na téere ba soo ñëwee ci jaamu yàlla yi laala yàlla leeral na nu ñuy jaamoo yàlla soo ñëwee ca ngëneel ya ca nekk yàlla leeral na ko soo ñëwee ci atte ya nu ñuy atte woo ñoom seen biir yàlla leeral na ko ci téere bi bàyyiwu ci dara moo tax mu ne tamaaman dafa mat sëkk amul lu ñu war a làmbatu lépp a ngi foofu ci ñoom mat na kon lu fi nekk yàlla yemul ci wa tafsilan mu ne li kulli shay'in leeral na naa leen lépp li kulli shay bàyyiwul dara lépp la leen yàlla leeralal kon la moo tax ñoom ñu sànk topp seen i bànneex ak seen i bëgg-bëgg ak seen i intérêt ndax yàlla moo wax ne li kulli shay lépp laa leen leeralal yemuma ci waaye wa xudan ma defal leen njub wa rahmatan ma defal leen yërmande lu tax laallahum ndax ñoom bi liqaa'i rabbihim ci daje bu ñu nar a dajeek seen borom ëllëg yuminuuna danañ ko gëm kon ñii yàlla desalu leen dara yàlla yónni na leen ab yonent bu tudd Muusa yàlla jox ko téere bu tudd Tawraat téere boobu yàlla defal leen ci lépp lu rafet yàlla leeralal leen ci mbir yépp yàlla defal leen ci njub defal leen ci yërmande lu tax pour ñu préparer dajeek seen borom gëm ko xam ne ëllëg a ngi ñëw danañ dajeek seen borom kon ñii yàlla desalu leen dara mu ne wa haada lii ngeen yor seen loxo tiim ko wa haada lii nga yor ci sa loxo tiim ko ah kitaabun téere la boo xam ne anzalnaahu wàcce naa ko mu tudd Qur'an mubaarakun mu am barke waaw waaw alquranul karim a ngi noonu moom tamit kitaab sànq lan la yàlla waxoon wàcce naa ci Muusa kitaab Muhammad alayhi salaatu wasalaam tamit lan lañ wàcce ci moom kitaab bee num tudd tawraat bii num tudd alquranul karim anzalnaahu wàcce naa ko mubaarak mu am aw yiw mu am njëriñ mu am barke buy sax dàkk ba yàlla di fi jële asamaan ak suuf du fi jóge waaw dëkk boo ne tëll ñu ne kii xaafisu Qur'an la nga dégg ñu waa dëkk bi ne la doo fi toog ñu may la jabar may la tool may la kër nga yoral ñu jàkka jeeg daara ji wala sëriñ yi ngeen di gis yëpp loolu moo leen indi fa ñu dëkk dëkkuñu fa fa ñu tekkee dañ faa ñëw sëriñ Tuubaa fu mu dëkkoon mba ah ah Alaaji Maalik El Hadji Omar ñoom ñëpp kenn dëkku ci fa ñu tekkee kenn dëkku fa même ba léegi nii fii ñu toll kenn ku nekk ah da ngay jàngi ñëwaat ñëw sa dëkk ñuy laxas laxas nga romb leen dem beneen dëkk ñu jox la tool may la soxna jox la kër jox la taalibe ne la jàngaleel amul sax taxawaalu kenn du mokkal alquran dem ci dëkk di fanaan ci mbedd jamais kenn du mokkal alquran di tumarank ci événement naar yi ñun biñ nekkee xale di jàng ndeysaan dafa amoon benn naar bu daan bëccëg xam ngeen bëccëg ay parfum ay yére ay bagage la daan jaay quoi Mauritanie la daan jóge mais day ñëw Sénégal jaay ko ba mu jeex mu ñibbi bu daan jaay nag yenn saa yi day ñëw suñu daara bu ñëwee ndeysaan day teg bagage yi di déglu kuy jàq alxuraan rek mu jël dàll dóor la ba ngay bëgg a dee ba mujj gi mu xaritoog sëriñ bi léegi dañ koy dencal añ di ko dencal ataaya di ko dencal ndékki bu ñëwee rek mu toog ñu jox ko ay xale mu yor xalqa di leen jàngal dafa bëggoon alxuraan dafa mokkal comme ndox mu nekk fi ay at ak ñun am na sama rakk bu jigéen bi ma leen doon wax sànq ci moom la mokkale alxuraan mu nekk fi ay at ba événement naari jot mooy jamono bi Sénégal sénégalais yi ak Mauritanie yi di di xeex ñii di rey sénégalais yi fële ñii di rey fii naar yi ndeysaan boobu mu ngi woon Sénégal waaye journée boobu ñun dañoo xëy gisuñu ko sunu sëriñ sam papa ndeysaan xelam nekk ci moom. ana diw ana diw ana diw mbaa reyuñu ko ñu toog ba heure yi rek mu yegg si ak tiitaange ak yuuxu ñu ne ko yow foo nekkoon mu ne ci benn ruq la nekkoon rek di jàng alxuraan mu ne après am ñu ko gis commencé di ko bundu xataal mu wone mu yore mu génne kaamil bi mu yoroon gars yi daal di nangu kaamil bi mais liñ ko bàyyee mooy protège bi warsh la woon riwaaye warsh kaamil yu xonk yi gaa yi jël téere bi bàyyi ko mu téye ci affaire bi ñu daal di koy jël dugal ko ci benn ruux ndeysaan indi ko ndox mu sangu ñu indi ko lekk mu lekk sam pap xool ko ba jàng mu ne ma Saïd ma ne quoi mu ne ma xam nga kii lu ko sauvé ma ne waaw mu ne ma alxuraan kii téere yàlla bi moo ko sauvé léegi nag suñu waa koñ ñu yëg ne am na benn kenn kuñ fi laax ñu ne ñoom tamit dañuy ñëw di indi ay attroupement benn waaye ñëw nañu kii bu leen ko fi gaare ndax dañ leen di indil problème mais yóbbu leen ko camp ba pour ñu delloo ko Mauritanie keroog nag lañ ko gëj a gis ba tey biñ ko yóbbee ba camp ba maag sama pap ci couvre feu boobu la ñu ànd man ak moom ñu yóbbu ko ba ci camp ba ñu jox ko benn colonel daal di ñibbi si ñu boobu nag laa ko gëj a teg bët ba fii ma toog maak sama papa keroog lañ ko gëj a gis pour wax leen ne alquran li yàlla tabaraka wa taala wax ne anzalnaahu maa ko wàcce mubaarak muy lu barkeel loolu dañ ko war a gëm waaye ban njëriñ lay am ci barke boobu mu barke ci yéen te yàlla def ko ci mooy fattabiuhu topp leen ko léegi nag ñun ci kitaabun anzalnaahu mubaarak foofu la ñu yem waaw rek dañuy bind naan sangu raay allahu akbar waaye ma barkeel waay macha allah est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que loolu rek ngay gis waaw kaamil yaa ngi ci kaw bibliothèque yi di poussière di pënd barkeelu rek raay diw sa kanam avant wala jënd teg sa kanamu oto wala jënd teg ci kaw armoire bi soo waxee rek ñu ne téere bu barkeel a ngi nii gars yi di raaj seen yaram yi am na sax yenn yenn yenn yenn gars yi lu ñuy takk ci seen dënn yi am na yenn yenn gars yi lu ñuy takk seen dënn yi wala jaaro yu ngand yu ñuy def kaamil lañ ciy def am na kaamil yu ndaw yu tuuti yu sew yoo xamante ne jaaro carré carré bi moom la ñuy jël def ko kaamil takk ñenn ñi seen pochette yooyu ñuy def seen dënn yi kaamil lañ ciy def nga defe ne lii dencukaayu xaalis la fekk kaamil la defe ne kaamil bi la leen di aar waaw ku yenu kaamil te kaamil lu xamoo ci dara aaya bi rek mooy dal sa kaw mooy masalul lazina hummilu tawraat summa lam yahmiluha ka masalil ximaar loolu kese la téere bi lan mooy njëriñam ci yéen mooy fattabiuhu topp leen ko gis nga ndigal la yàlla joxe téere bi dañ ko war a topp warul nekk téere boo xam dañ koy jàmm di ko naan di ko sangoo di ko takk ci sunu ndigg yi koo wax mu ne laal ma ayatul kursi mu ngi sama wet wala loolu moom benn njëriñ fattabiuhu topp leen ko wattaqu mooy tandiku leen laallakum ndax yéen turxamuna yàlla yërëm leen topp téere bi mooy tandiku ndigal yi ak tere yi jëfe ndigal yi bàyyi tere yi wattu ko loolu ci la ñuy amee yërmande yàlla laallakum turxamuun borom bi tabaraka wa taala mu ne an li wër tey mbir an taqulu ba ngeen bañ a wax ëllëg innama unzila alkitaabu ala taifatayni min qablina wàcce naa ci yéen téere bi balaa ngeen di wax ëllëg téere bi day yàlla ci yahudi ak nasaraan yi la ko wàcce woon mooy taifatayni ndax léeg-léeg sax nga dégg sénégalais bu ne la ah téere bi de wallaay téere arab yi la ñun suñu yoon nekku ci ñun africains yi amuñu yonent amuñu téere yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci arab yi la ko yónni loolu réer la loolu pas-pas bu bon la yàlla yonent bi ci ñëpp la ko wàccee téere alxuraan téere ñëpp la loolu alxuraan la wa ma arsalnaaka illaa illaa illaa illaa kaafatan linnaas yonent bi ne inni rasulullahi ilaykum jamia yàllaa ma yónni ci yéen ñëpp alxuraan la waaw naka la yonent bi waxee ne yàllaa ma yónni ci ñëpp yàlla ne dama kaa yónni ci ñëpp ñu bugg a wax ne alxuraan téere arab la yonent bi diine arab la yàlla ne yéen seen diine arab yi loolu ngaa yox diine arab am na benn formation bu ñu doon def institut islamique ndeysaan kenn ci cheikh yi daal ñuy posé benn question mu ne lan ngeen xam ci gàmmu gaa yi commencé yëkkati loxo di tontu benn waay ndeysaan benn sénégalais boo xam dañoo bokkoon formation bi mu ne yéen naari yéen naari ngeen di jaamu quoi moo tax ngeen di jéem ngeen di jéem a kontaan loo naari di jéem a weddi gàmmu ma pour naari kontaan ci yéen may leen xaalis quoi bàyyi leen jaamu naar bon comme ci classe lañ nekkoon am ñu ree quoi am mu jóg tàngal ko bu baax quoi biñ génnee ma réclation noonu génn di noppalu doxantu pour a dugaat ma ñëw ba ñu moom ma ne ko yow nga ne ñun ay naar la ñuy jaamu mu ne wéy naar ma ne ko kan moo jaamuwul naar seen sëriñ yi ñan lañ gëm Cheikh Ahmad Tidiane Sérif lan la Abdul Qadir Jeylaani lan la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan la mu ne non non xam nga ñun benn lañ quoi bu ñu am problème bu bu ñu kenn jaxase quoi ñun ñëpp ma ne ko ah déet dafay laaj rek bu fekkee jaamu naar kay kon ñun ñëpp naar la ñuy jaamu wala waaye bal ñun jaamuñu naar loolu wax ju ñaaw la rek même ñoom li ñuy wax sax seen sëriñ yi naar yi lañ gëm boo fekkee seen téere ñu bind naar yi lañ ciy tagg bal sax yenn saa yi da nga gis naar bu wax dara ñoom ñu daal di koy jël ne ñoo ko wax fekk waxuñu ko da ngay dem ci téere ba waaja nga fekk fa wax ji nga ñëw fii ñu ne sëñ bee ko wax léegi sëñ bi da ko recopier kese looloo bëri Sénégal rek recopier yaa sax demee wax na nangam kërti kërti bee gars yi waxi jàmbur la fa bind moom du waxam loolu tax borom xam-xam bi dañuy wax ne sooy sooy taalif téere wala ngay wax dara ci dara wax jooju bu fekkee yow waxoo ko da nga naan diw nee na ci téereem nga cité passe bi wax bind ba ba ñu xam ne yow du sa wax da ngaa nettali waxi jàmbur mais li ëpp ci ñun da ngay jël waxu jàmbur wax ko ñu ne sa tët tët tët ji borom xam-xam fekk waxu jàmbur nga fi indi loolu mooy suñu problème moo dal moo ñu dal fii ci Sénégal kon wax ne ay naar la ñuy jaamu yàlla moo defal naari tawfiix moo leen defal xéewal yàlla wàcc alxuraan mu nekk waxu waxu naar yàlla wàccee ki gën ci nit ñi mu nekk yàlla nekk ngën gi dëkk mu nekk ngën dëkku naar lan laa jublu ci naar lan laa jublu ci baat bi ma naan naar arab laa ci jublu gars yi nag sénégalais ñoo koy woowee ñoo laan na naar moo tax ma waxee baat boobu mais arab alquran bi yàlla mu ne quranan arabiyan jeex na sooy julli looy laaj amoon nañ benn nijaay ndeysaan dafa dofoon ci tukulóor dafa jàng tukulóor ba ñu koy wax mam mama Samba Diop bokk na ci tubaab yi li ñu ko doon defloo mooy li Kamal Atatürk doon def Irak Turki mooy jaamu leen yàlla ci seen làkk bu ngeen jaamu yàlla bàyyi leen làkk jàmbur yi jaamu leen yàlla ci seen làkk ndara de so doon njuula oto bi allahu akbar bi yoon allah ko mawɗo jàngoon fatiha hooya pulaar bu ngeen di julli bu ngeen di jaamu yàlla bàyyi leen làkk arab làkk leen seen làkk maanaam olof yi di jullee bu ñuy jàng bu ñuy julli ñun yàlla ku màgg la nga traduire Fatiha bi ci wolof booy rukkoo nga def loolu nga def noonu loolu Kamal Atatürk defoon turk mu ne bu kenn làkk arab kuy jaamu yàlla kenn terewul jaamu yàlla mooy booy jaamu yàlla def ko ci sa làkk ndeysaan yàlla nu yàlla jubal kon loolu yëpp pour ngeen di wax ne innama unzila ne téere bi dañ ko wàcc alkitaabu téere bi dañ ko wàccee ala taifatayni ci ñaari kuréel kuréel yooyu ñooy ñan ñooy alyahud wa nasara min qablina waaye wa in kunna an dirasatihim la ghafilu la ghafilin ñun de ci jàng histoire wu ñooñu ñun de ñu ko sàggane lañu woon xiraati li kutubihim jàng seen téere yooyu yàlla wàcc ñoon bi lisaanihim ci seen làkk ñun mënuñu fee nekk daan dañuy jàng tawraat wala ñuy jàng injil lu tax parce que jànguñu ibra te tawraat ibra la ko yàlla waxe woon injil kazalika ñun duñ ko mën moo tax yàlla ne pour du ngeen fi nekk di wax lii naan alquran yàlla daka wàcce woon ci ñaari kuréel yooyu yawut ak nasaraan wala ngeen di wax ne ñun ñii ci jàng seeni mbig seeni téere wa in kunna an dirasatihim ci jàng leen jàng seeni histoire la gafilin ñu ko sàggane lañ loolu kenn du ko fi wax wa nahnu la nafhamu zalika ñun duñu comprendre làkk yooyu moo tax ñun jéemuñu woon jàng téere yooyu moo tax sunu borom day wax ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi yàlla saa yu yónni ay nit fa mu leen yónni làkk ba ñuy làkk moom la leen yàlla moom la ko yàlla di jox téere ba yàlla di wàcce téere boobu lay nekk seen làkk boobu lay nekk pour lan pour communication bi mun a dox pour ñu mën a déggante mu ne aw taqulu wala ngeen wax law anna unzila alayna alkitab waaw nun lu tere woon tey ñu wàcce ci ñun ab téere lu tere woon wàcce ñun ci ñun téere borom bi nee na yii yëpp laa dagg kenn du ko fi wax ëllëg wàcce wuñ ci ñun ab yonent téere yi ñuy jox ay téere nas yahud ak nasaraan la comprendre ñu ko lan moo taxoon ñun joxuñu ñu téere lu taxoon yónnee wuñ ñu yonent yowmal xiyaam kenn du dem ci yàlla di ko fi wax parce que yooyu yëpp am na yàlla wàcce na ab yonent yàlla wàcce na ab téere lépp leeral na ñu ko ba mu leer law laa lu tere woon an naa nun unzila ñu wàcce alay naa ci ñun alkitaabu téere kon la kunna danoon nekk ahda minhum kon ñun danañ leen gën a jub ñun bu ñu yàlla joxoon téere wala mu jox ñu yonente kon ñun ñooy gën a jub gaa yi yàlla mu ne loolu nag def naa ko xad jaakum ñëw na ci yéen bayyinatun lay wu leer wu ne keng min rabbikum mu bàyyi ko woon ci borom kon li ngeen doon wax def naa ko yónnee naa leen yonent wàcce naa leen ci yéen téere xad jaakum ca dëgg-dëgg dikke na leen bayyinatun lay wu leer wu ne weng min rabbikum bu bàyyeekoo ci seen boroom wa hudan ak njub bu bàyyeekoo ci seen boroom ñëw na wa rahma ak yërmande loolu lépp indi naa ko daxañ naa ko ci alxuraan muy téere bi ma leen jox fa man azlamu kenn dàquta tooñ mimman waaja nga xam ne kazzaba dafa weddi bi ayatillaahi aaya yàlla yi ko kenn dàq ko tooñ jawaab bi mooy kooku kenn dàqu ko tooñ ku fekk yàlla wàcce téeréem yàlla yónni yonentam yàlla def ca téere ba njub yàlla def ca téere ba yërmande nga ñëw sànq ko fële ne nit ñi bu ñu ko jàng nangam nangam def ko téere barkeelu ah def ko nangam nangam jarta jàng bul fekkee fu ñu koy tafsir solal ay dàllu weñ daw ba fas bi dee bul fekkee fu ñuy firee alxuraan yooyu la ñuy mayaay yàlla mu ne réer weesuwul lool moo tax faman aslam ana kan moo dàq tooñ nga ni kenn dàqu la tooñ mimman waaja nga xam ne kazzaba dafa weddi bi ayatillaahi aaya yàlla yi yemu ci wa sadafa anha mu dummóoyu ko arado anha walam yaltafit ilayha dum xoolul alquran benn yoon da ko sànni ginnaaw faalewu ko sax ah boo waxee mu ne rakkal la ngal nañ ko waaw e dégg alquran rakkal la gaa yi ñoo koy wax ah alquran de du dara yéen a ngi seen whatsapp bi dégg ngeen waaji lu mu wax alxuraan ni mu gënee silaabeer du loolu ngeen am wala dégg leen loolu alxuraan la ñuy tëkkaleeg silaabeer xam ngeen silaabeer ah ah waa ji nee na ni alxuraan gëne silaabeer noonu la nangam bi gëne alxuraan ku gëm ne alxuraan dañ koy tolleeg silaabeer ndax di nga jàng alxuraan moo tax Sénégal boo xëyee fajar di doxantu wala nga romb marché wala nga dugg ci oto yi da ngay gis gars yi concentré ku nekk yor téere di jàng boo ko nuyoo sax du la fay waaye du alxuraan de xoolal gëmloo ay nit bu ngeen xëyee jàng leen nangam mais bu leen jàng alxuraan sama benn xarit bu ma àndaloon muy jël wird ci benn kër sëriñ bi mu demee sëriñ bi li mu ko njëkk a tere mooy bul bàyyil alxuraan semaine bi moom bul fi jàng alxuraan mu ne waaw mu génn ma ne ko alku nga de alku nga de mu ne ma lu ma alak ma ne ko dégg nga kii lu ma wax mu ne alxuraan bul ko jàng mu ne ma waaw ma ne ko boo jàngul alxuraan di nga alku te yow jàng nga dofoo jinne jàpp la bul fi nekk topp kii da lay réeral borom bi tabaraka wa taala nee na wa sadafa anha waa ji dummóoyu na alquran wan ko ginnaaw waaye yàlla nee na sa najizi danaa fay allazina gaa yi nga xam ne yasdifuuna ñoo wan ginnaaw ñoo dummóoyu an ayatina sunu aaya yi sama téere bi ñi ko wan ginnaaw danaa leen fay fay boo xam ne suu al azab mbugal mu ñaawa ñaaw ñaaw laa leen di mbugal ëllëg yowmal xiyaam waaw ay sayiul azab wa huwa ashad ñi dum mooy alxuraan yàlla nee na dinaa leen fay ëllëg mbugal mu méttee métti mbugal mu tar mbugal mu ñaaw kon alxuraan du téere bu ñuy won ginnaaw alxuraan téere la boo xam ne saa yoo xëyee loo alku alku alku alku bokk na ci wasaaya al imam xasanul banna yu muy dénk frère yi al wasaaya al asara fukki ndénkaane yi mu dénk mooy jógal julli qum ila salaa jógal julli saa yoo déggee nodd ak circonstation yi fu mu la fekk ak programme bi fu mu la fekk boo déggee ñu nodd bàyyi li ngay def jógal julli ñaareel bi mu ne foo mën a nekk na nga jàng alxuraan ak situation bi lu mu la mën a fekk na nga fexe nga jàng alxuraan bul xëy ba tëddaat jëng nga jàngoo alxuraan alxuraan kenn ko du mooy bokk na ci hijjir xuraan nga fekk kaamil bu tilim ci kaw armoire wala bibliothèque mu toog ñetti fan kenn laalu ko loolu musiba la moo tax borom bi ne danaa fay sa najzi lazina yasdifuuna an ayatina suu al azab lu waral loolu mu ne bi ma kaanu yasdifuun la ñu nekkoon di dummóoyu alquran dinaa leen ko fay bu ñu demee àllaaxira kon nag imam Saïd Hawa nee na booy jàng alquran bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee aaya bi fu mu jeexee rek bàyyi ko xel ndax sunu borom subhanahu wa taala importance gi mu jox aaya yooyu fin bi ngay xam ne yàlla jox na ko gëdd wala joxu ko gëdd fin bi ngay xam ne lii am na importance trop wala amul importance mu ne mu ne dee leen bàyyi xel ay fu ñuy jeexee yàlla tabaraka wa taala nee na ñi du mooy alquran danaa leen mbugal mbugal mu méttee méttee métti lu ko waral mu ne bi maakaanu yes di fu na ndax lañ ko du mooy woon kon loolu bu ñu ko déggee ñun lu mu ñu war a jubal lu mu ñu war a jural lan la ñu war a orienté mooy ñu jublu alquran màtt ko ak suñu fukki dëgëj ñaan yàlla tabaraka wa taala mu saxal ñu ci mbokk yi lii mooy darsi tey ñoo ngi jéggalu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu